sëriñ bi daal sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee ko fas yéenee liggéey liggéey. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa kilifa yi fi teew. noo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziyaare di leen sant ci teewaay bi di leeral rekk jotaay bii ni mu nara a tëdde ñuy jiital nuyu ak ziyaare suñu kilifa di a cheikh isxaaq ibn cheikh mohamadul teewal fi cheikh mohamadul muntaqa xafisahu llahu taala wa ayadahu wa nasara di ziyaare bu baax sëriñ Ahmad al Badawi ibn Cheikh Mouhamad Fadil nga xam ne moom la Cheikh Mouhamad Muntaqa jiital ci liggéey bii di ziyaare bu baax Cheikh Saalih ibn Cheikh Mouhamad Murtada ci teewaayam ngeen xam ko mu jiite mbooleem al maahid al azhariya nekk directeur général institut al azhar yi nekk ci biir senegaal ak ci biti Sénégal waaye nag ci seen tur di ziar baax sëñ jàmme njaay nga xam ne moom moo fi teew teewaayu sëriñ Abdul Ahad Ka mi nga xam ne mooy meeru Touba waaye ci seen tur ñoom laay dalale ki nga xam ne mooy inspecteur sëriñ Babacar Samb nekk inspecteur des daara ci ministère de l'éducation mu teew fi ak délégation bu mag a mag a mag teewal fi ministre de l'éducation ndax ànd naag ay chef de service ñu ràññee ci bu baax inspecteur Ousmane Ba jiite division enseignement arabe waaye ànd ak IA bu région bi ca sëriñ inspecteur Mokhtar Lo teewal ko fi waaye mu ànd ak IEF mooy inspecteur de l' éducation et la formation bu Serigne Ndiaga Ba nekk fii ci département Mbacké nga xam ne ñoom ñooy suñuy njaatige fii ñu ràññee bu baax seen taxawaay kon ginnaaw nuyoo boobu jotaay bii nga xam ne tey Serigne Cheikh Mbacké Niang dina ñëw leeral objectif yi waaw représentant ci service yi nga xam ne teew nañ fi ki nga xam ne moo fi teewal enseignement privé direction enseignement privé ñëw na ci jotaay bi kon mu mel ni waa ministère bépp service boo xam ne gis na ne war naa am taxawaay ci liggéey bi ñu sumb yabal na ko loola nag li muy firndeel mooy ñor gum ko ñor ak yitteel gum ko yitteel loolu kon ñuy sant xam naa cant gi kilifa yi ñoo ko yore dinañ ko jottali waaye sëñ Babacar kon ñu lay yóbbante ci ministre bi xam naa sëñ bi dana ci ñëw ci gis nañ ni mu jàppe bis biir xam nañ ne ay xat-xat moo tee mu ñëw waaye moo ko waroon a jiite waaye nag boo ko fi teewalee mel na teew na fi même secrétaire général jokkoon ak sëriñ ma xam ne moom it dafa nekk ci mission moo tax teew fi waaye yéen ñi fi teew moom mata ngeen ko sëkk kon ñu ngi leen ci sant kon jotaay bu mel nii nag xam ngeen ne mbirum l'éducation nationale la kon ci ndigalul Serigne Ishaqa dañuy jox inspecteur Babacar Samb moom lii di cérémonie d'ouverture bi moom mu présider ko ndax mooy ki nga xam ne moo fi jëmmi ministre de l'éducation tey kon moom la ñuy jox Euh, séance bii nga xam ne mooy cérémonie d'ouverture bi bu ko defee moom moo koy moo koy jiite ñi war a jël ñi ci war a jël kàddu dina leen jox kàddu kon loolu rek lañ bëggoon a ubbee di sant mbooleem ñi nga xam ne ñoo jóge ci établissement yu mag yi ci Touba ndax ñoom ñëpp ñëw nañ fi ndax jotaay bi dañ koo tànn ñi nga xam ne ñoo représenté mbooleem luy enseignement ci Touba am nañ fi ndaw euh, ndax kilifa yi lañ woo ndax lii validation institutionnelle la defoon nañ validation technique bi boo xam ne ñëpp woon nañ ci waaye tey nag suñu kilifa yi ñoo jagoo jotaay bi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kon ñu jox kàddu gi inspecteur euh, Babacar Samb rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billahi taala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdata min lisaani yafqahu qawli mbokk yi fi teew asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi nuyu kilifa yi fi teew yëpp kenn ku nekk ci turam ak santam euh, te di la wàcce sa wàccuwaay di jiital ci nuyoo bi al cheikh Ishaq ibnu Mouhamadul Bachir di ci teg al cheikh Ahmad al Badawi raisul mujamma ak cheikh al Salih al mudir al azhariya di teg nuyoo bi seen loxo di ci ñu jotee ñu ko mbooleem ñi teew ci ay kilifa diine yu fi nekk ay boroomi xam-xam ak imaam ak suñu mbokki daara yi ak suñu collègue yi nekk fii ci salle bi dafa mel ni jataay bi jataayu xam-xam la jataayu ni ko sëñ Sam waxe jataayu éducation la cër bi ñu jox tam ñu di ci bég lool euh, muy cër bu ñu cërale ministre de l'éducation nationale comme ni ko Serigne Sam waxee bëggoon na fee teew lool lool lool euh, yàlla dafa dogal moom bi mu jëlee service ak léegi yàggul waaye man euh, ndigal lim ma njëkk a jox instruction bi ma njëkk a jox ba ak léegi yàggul dani ma préparel ma visite à Touba ma dem safwante kilifa yi dem ziare daara bi Ndaté Cissé euh, jànge loolu la ma njëkk a wax comme instruction pour wane intérêt bi mu accordé ci Touba ak njàng fii ci biir Touba yaakaar naa ni loolu moo dab SG dafa tukki moo nekku fi moo tax mais bëggoon naa ñëw fii fekk jataay bi wax na ma ni waxtaan na ci ak Cheikh Ahmad al Badawi euh, ak joxe ngantam mais ku ma yàgg wax la bëgg naa ñëw fii visiter fii fii ci Touba moo tax bi mu amee empêchement tam mu ne nañu def délégation euh, boo xamante ni nii de mën a sëmb dina représentative mu jël inspecteur des daara ak euh, inspecteur Moussa Niaye bi ànd ak inspecteur Cheikh Diop ak Ba ak inspecteur Kunta ñu ànd ak euh, bureau chef de service bu nekk ci division enseignement privé monsieur Diouf ñu jaar ànd ak yaa comme ni ko sëñ Sam waxee ak suñu mbokk euh, njaga ba di IEF bi nekk mbàkk Mbàkke fii ci ak yéen fii ci dëkk bi euh, ak suñu SG muy Serigne Ngom euh, daanaka dama koy tooñ léeg-léeg ma ni moom xaw ma fan laa koy boole sax ndax ci dañ moo ñu dalal waaye de day ànd ngi délégation bi di doom ci dëkk bi di taalibe ci dëkk bi kon ñu ci bëgg baax a baax di jéggalu baax a baax nag ci yéex a ñëw gi yàlla dafa dogal bi ñuy jógee bi ñuy ñëw bokkuñu fu ñuy jógee ñu doon coordonné ñëw war day ci IEF bi biñ dikkee tam ay ay gàllankoor yu ñu tënkoon ba ñu yéex si waaye ñoo ngi jégg lu baax a baax bu ñu sañoon ñoo fiy jiitu ñëpp xam naa ni comme ni ñu koy waxee rek bala ñoo gën a jël ci temps bi dañuy jugu ci liggéey bi rek di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu ko mu nekk tawfiq mu nekk liqaan muwafaqan incha allah wa jalsatan mubaraka comme ni ñu koy waxee ci agenda bi euh, dañuy njëkk a jox Cheikh Ishaq ibnu Mouhamadul Bachir di kilifa ak jataay bi incha allahu taala mu ubbil ñu ko ak ñaan bu ñu paree ñu door a jox Cheikh Ahmad al Badawi raisul mu jamma ngir mu def kalimata tarxib li duyuf incha allahu bala ñoo jox suñu collègue Cheikh Mbacke ñaa pour mu defal ñu euh, présenter ñu objectif ak modalité yi ñu fi war a liggéey incha allahu taala kon Cheikh euh, Isaac ñoo ngi lay delloo kàdd gi Mbacke ngir nga ñaan yàlla def barke jataay bi salaamaaleykum wa rahmatullah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 ñu ngi yëkkati sunu kàddu ci turu sëriñ Isaax bu ko tàmbalee nag ci ab nuyoo akub cant akub ñaan jëmale ko ci ak Cheikh Mouhamadou Mountakha di ñaan suñu borom bàyyi ko fi ca may ko ba li mu yéenee liggéeyal lislaam lépp ci toolu sëriñ bi mu mën ko def toolu ànd ko ak moom di yëkkati kàddu gi turu sëriñ Isaax ngir dalal leen ci fii nga xam ne seen kër la ci seen jataay bi nga xam ne yéen ko moom ñu di ko defe fii ci kër Cheikhuna Ahmadul Xadim radiallahu anhu kon muy kërug lislaam mën nañoo wax ne ñu di ko defee ci biir jàkk di fi liggéeyal lislaam di fi liggéeyal xam-xam wajaal buyuti kullaha masajida yaa naafiyun man laa yakunu sajida mu doon jotaay bu am solo boo xam ne dafa dugg ci liggéey bi nga xam ne moom la Cheikh Mouhamadul Muntaqa di def muy jàngukaay bu mag bii nga xam ne jàngukaayu lislaam la ñu waxee jàngukaayu sëriñ Tuubaa mooy jàngukaayu lislaam bokk ci yi nga xam ne sëriñ bi daf ko daan jëfe nekkoon ci di ci yar mboolem ñi nga xam ne ñoom la àndaloon namputal ci njaboot gi ba loola mooy wéy ci dëkk bi ba yegsi fii waaye ku ko fi mas nekkal nag naal bii moom moom nga def muy sa yitte dox nga ci ay jéego ba fa nga xam ne fa la jamono tolloon tolloon nga foofu yàlla dogal tey nag Cheikh Mouhamadul Mountakha yor liggéey boobu muy daara joo xam ne bépp xam-xam bu am njëriñ des ko fay jànge waaye képp ku bëgg a jàng itam nag dangay mën a ñëw jànge kon sëriñ Babacar ñu lay dalal jàmm yow ak mbooloo mi nga xam ne yéen a fi ànd di leen xamal ni seen kër ngeen ñëw seeni bokk ngeen fi fekk di leen yóbbante ak cant ak nuyoo ci Cheikh Oumar mi nga xam ne moo leen fi yebal di ko ñaanal lii nga xam ne président président Macky Sall dénk na ko ko yàlla defal ko ci kàttan ba mën koo def ni li ñuy séntu ci moom ak ni mu ko bëggee di leen sant yéen ñëpp ci teewaay bi di leen xamal ne itam bi ngeen ñëwee fekk ngeen fi Serigne Ishaq dañ ko waxee waaye fekk ngeen fi Serigne Saleh moom Cheikh Mamadou Murtada nga xam ne li nuy waxa waxtaane kenn mënu koo tudd ci Sénégal te tuddoo Cheikh Mouhamadou Murtada mu teewal fi magam Serigne Mamour moom itam di jàmbaar lool ci liggéey bi ñu di ko ñaanal suñu borom gën koo kàttanal gën koo dëgëral keroog bi muy eh, teral ñi nga xam ne ñoo njëkk a génne ci jataay boobu bi ci eh, uni jaamia Cheikh Ahmad Bamba Cheikh Mahamadul Muntaqa daf ma faa yebal wax ne ñooñu mooy njëkk a génne ci jàngukaayam bi ndax jàngukaayu booba mooy jàngukaayam bi lépp ci digalam yàlla dogal na it ba ko cheikh Mouhamadul Mourtada di taxawal muy al azhari sharif booba cheikh Mouhamadul Mountakha mii bokkoon na ci jëwriñ yi ko ci gënoon a jàppale moom magam cheikh Mouhamadul Moustapha moom cheikh Mouhamadul Bachir. ña fa një njëkk a jàng itam njabootu cheikh Mouhamadul Moustapha Bachir ak njabootu cheikh Mouhamadul Mountakha bokk nañ ci. kon bu ñuy def liggéey bii mu ñëw teew ci kon ñu ngi leen di xamal loolu waaye Cheikh Ahmadou Mbacke Gaynde Fatma moom itam ku tudd daara yi tudd ko moom itam ci ndigalul sëñ Ahmadul Mokhtar ak ci ndigalul sëñ euh, sëñ euh, Abdourahman teew nañ fi ñoom itam ndax ñoo ñoom ñoo àndoon liggéey bi waaye mboolem ñi nga xam ne ñoo yor njàng mi ci dëkk bi ñoom itam teew nañ fi kon sëriñ Abdou Lahad Ka moo fi waroon teew dalal leen waaye sëriñ Jàmme mi ngi fi teewal ko fi waaye soxna maam Anta Mbàkke moom itam jàmbaar ci waar wi rawatina ci jamono yi ñu toll ak soxna May moom Cheikh Abdou ak mboolem ñi nga xam ne rek ñoo yor njàng mi ci dëkk bi ñoom ñëpp ñoo àndoon di waajal waajtaay bi waaye ñoom ñëpp ñu ngi ñëw teew kon mu doon jotaay boo am solo boo xam ne ni ma ko waxee dafa dugg ci liggéeyu Cheikh bi nga xam ne dafa waxoon ne daara joo xam ne day tàmbalee ci kii dal baasin ba ca njobbaxtal la loolu nag moo tax bàyyiwut menn njàng moo xam ne mu ñu war a jàng la mu am njariñ waaye nag képp ku bëgg a jàng itam bàyyi nañ la ci xel waaye bi ñu koy waajal nag ni ñu ko waxee woon ñu def ko ay commission yu baree baree bari benn bu ci nekk am liggéey buñ ko séddee woon mu doon ko taxawee taxawaay bu rafet foofu itam ñu fi sant ministre bi ci sunu njabootu Cheikh Mouhamadoul Mountakha gii nga xam ne ñoom dañoo àndoon ci waajtaayu liggéey bi bañ koy waaj doon coobarew doon ko bokk ak seenub liggéey waaye bi yàlla dogalee ñu dem ba liggéey boobu war a taxaw nag mu xam ne mënuñoo ñàkk féete ci liggéey bi sëriñ bi sàkku ci njiitu réew bi ñooñu mu indi leen ngir ñu mën koo jàppale ci liggéey bi alhamdulilahi rabbil alamin ñu leen di seedeel ne kat li taxoon ñu indi leen di def nañ ko nu kawe njort ndax bu njëkk dañ cee nekkoon ngir war cee nekk ndax liggéeyu Serigne Touba la ñu njabootug Serigne bi waaye nag doon ko bokk waaye biñu leen indee nag ne leen kat dañ leen indi ngir ngeen def liggéey bi ñuy leen di seedeel ne def taxaw nañ ci taxawaay boo xam ne kawe na njort ba tax moo tax tey liggéey bi yegg loola nag ci commission yëpp lañ bokkoon commission bu ne am na ci ñooñu ñu bokkoon ci commission ba waaye bii nag tey ñuy def ñoom itam dafa bari ci ñoom ñoo xam ne ci lañ bokkoon muy waajal njàng mi nekk ci dëkk bi sëriñ bi dafa bëgg ñu nos ko nag mu doon jàng moo xam ne lépp day tënku ci ndigal waaye day tegu ci charte yi nga xam ne moom la ministre de l' éducation nationale tëral ngir jàngukaay yi nekk ci Sénégal di ci jàng ñu xool ne dëkk bi dëkkub Cheikhuna al Xadim radiyallahu anhu la te daara la daara nag moom diine lañ fa war a jàng diine nag buñ ko waxee mboolem xam-xam yi am njëriñ ñu ngi ci biir diine ndax alxuraanul karim mooy ndambul xam-xam maa faraqnaa fil kitaabi min shay loolu kon rawatina nag xam-xamu diine bi nga xam ne moom mënta ñàkk ci nit loolu moo tax ñu gis ne bépp jàngukaay bu nekk Touba nga xam ne borom daf koo santoon daf koo sañcoon ngir defar nit ñi xamal leen tawxiid xamal leen a ashara asiraatul mustaqim muy shariatul mutahara waaye xamal leen xaqiqatul munawara kon loolu ku nekk ci dëkk bi da ngaa war a xam loolu te loolu nag kiñ ko war a gën a xamal mooy ku toll ci jàng loolu moo tax sëriñ bi waxoon ne mboolem jàngukaay yi fi nekk nañ ko dëppaleeg ak njàngalem sëriñ Touba ak yaru sëriñ Touba ñu xool programme bi nga xam ne moo fi nekkoon ñu jox ko ay borom yi xam-xam jiital ci ñoo ñi nga xam ne ni ma ko waxee sànq ñoom lañ fi indi ñu yor liggéey bi waaye ñu ànd ko ak mboolem borom xam-xam yi nekk ci région bi mën na ma wax ak ci réew mi am na ci ñoo xam ne sax retraité nañ bu yàgg waaye dañoo ñëwaat ànd ci liggéey boobu ñu tëral nag programme boo xam ne dañ leen ko leeral liñ jàpp ne daal mënu cee ñàkk ci wàllu nit ki xam diineem am yarub lislaam waaye xam cheikhuna al xadim radiallahu anhu mi sañ ci dëkk bii ak wooteem bii lu taxoon mu woote ko te mu doon loo xam ne rek mooy yaatal leeral njàngalem sallallahu alayhi wa sallam ndax wax na ko ba tàyyi ci njëlbeen ga rek la wax ne euh, euh, li ma tax a jóg mooy rek yeesal wala yaatal gën a leeral njàngalem san sallallahu alayhi wa sallam wa sunnatuhu alxarra inshaa rabbi ubayinu nahji tariqul mustafa la gayru wa yantahi ila siwaay dayru ku doon lim lim wax ci ne <clears throat> moom amul benn royukaay amul benn bëgg-bëgg bu dul sallallahu alayhi wa sallam kenn mënta wax mu ci bind lim toll loole nag lañ bëgg njaboot gi xam ko man koo man koo man koo jëfe te buñ ko jëfee danañ am nit koo xam ne ku xam diineem lay doon ku gëm yàlla lay doon kuy cëram làggi ci jaamu yàlla lay doon tam koy def te yàlla rek tax waaye nag ku xam nu mu war a nekkee ak ay moromam la nu mu war a nekkee ki kilifaam nu mu war a nekkee ki waaye nu mu mën a amele njariñ société bi nga xam ne ci la bokk ndax dafa bokk ci li tax ñu indi nu fi mooy nekk kuutaayu borom bi subhaanahu wa taala ci kaw suuf te loolu nit ki bu xamul du ko mën a def inni jaailun fi l ardi xalifa waaye da caa bokk itam wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun te ki bu xamul itam du xam nu muy yàlla waaye dafa bokk ci loolee nag mu rafetal jaamu googee te mooy ixsaan waaye daf caa bokk mu dundal suuf wa anshaakum min al wa wastaamarakum fiha kon loolu moo tax ñu waajaloon jataay bi muy jataay bu yaatu ñu ne woon tey nag defoon nañ validation euh, technique bi mu doonoon mbooloo mu bari fekke woon ko yéen itam ministre bi itam yabaloon fa ay ndawam waaye itam bii nag ñu war a def validation institutionnelle naka noonu it ci lañuy sant nag ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci gox bi tàmbalee ca iya ci njaareem waaye ñi ñu nekkal fii ci EF muy inspecteur Jagaba ak Serigne euh, Mouhamadou Ngom nga xam ne ñoom wax dëgg ñoo dekk ak ñoom fi waaye ñu ngi taxaw ci liggéey bi liggéey bi ñoom lañ ko àndaloon liggéey bi ñoom lañ ko àndaloon kon ci turu Serigne Isaac ñu ngi di dalal jàmm di tàmbali liggéey bi bëgg ñu leeral ko ba ngeen xam ni mu tëddee ñu ànd ko ak ministre bi Serigne bi itam dafay loolu moom Serigne Isaac dana ci ñëw waaye dañoo bëgg bu noppee daal mboolem école yi nga xam ne ñoo nekk ci dëkk bi ñu tënku ci xam nañ ne lu jàpp ne doon ndax noo àndoon liggéey bi ñoo ko doon defar te li ci ne lépp njariñ la loo xam ne dem nañ ba mënatu da ñàkk ci ministre am Mamadou Talla di leen xamal ne bi mu fi nekkee day lépp loo xam ne mas nañ koo sàkku ci moom sëriñ bi sàkku ko bu ko ci président joxe ndigal defee na ko nam ko war a defe kon itam ñu ngi koy ñaanal moom it fee nga xam ne fa la nekk suñu borom defal ko kàttan bala xam ne moom la ñu séentu ci moom man koo def foofu waaye Cheikh Oumar Anne mi itam ñu koy dalal jàmm ci liggéey bu mag bii nga xam ne moom la ko président dénk moom itam bu am itte la ci dëkk bi ndax ñëwoon na ba seet si mu jàmmanche Ahmadul Xadim bii wax fi ay yéene yu rëy yoo xam ne jàpp nañ ni incha allah sunu borom dana mottali loola waaye fii mu ñëwaatit nag ba tey ak njabootam la fi fekk ndax ñi fi nekk ñëpp ci éducation nationale lay yor te moo yore daara yi te Touba daara la ni ma ko waxee woon moo yore itam li nga xam ne moo aju ci njàng mu suufe mi li nga xam ne moom lañ bëgg doxal fii kon yàlla na ko yàlla kàttanal te dëgëral ko ba mu mën a àggal yéenam di jagleel ak cant itam soxna soxna Xadi Jóob moom itam lu ñu soxla moom rek la ñuy jokkoon mu saw amul guddi amul bëccëg te lu mu dégg ci sunu soxla dana ko yeggale fa mu ko war a yeggale waaye dana ci taxaw taxawaay ba mu ci war a taxaw itam ba loola ñu am ko dañ ko bëggee ñu ngi tàmbali wax ci ndoru bi asalaamaaleykum wa rahmatullah ba de junj na mooy rek mooy rek weccante euh, xalaat suñu euh, gan yu tedd yi ci liggéey bi nga xamante ni qisme euh, bi muy section bi di section école moderne def na ko doon benn bànqaas ci bànqaas yi nga xam ne ñoo man ngànk programme njàng mi ci biir Touba ñu bëgg a gaaral euh, mbokk yi liggéey bi fan la tàmbalee ba di ñu egsi kon loolu mooy benn jubluwaay bu njëkk bi buñ leen ko gaaralee ba nag wax leen niñ doon liggéeyee lan moo ci diggoo ci résultat ñu jox leen kàddu déglu leen ñu wax ci seeni xalaat jooyanti li mat a jooyanti su ko defee ba bu ñuy génn fii ci jotaay bi mu mën a am li ñuy wax validation mooy euh, dëppoo ci dara su ko defee nag ñu tëralu boo xamante ne xam naa ne waxtu yi moom léegi xëy na nañ ko tërale woon dana am ak soppeeku waaye jotaayu ubbi gi bu jàllee kàddu gi ma yor jàll dañuy jox suñu mbokk su Cheikhouna Mbacké Abdoul Wadoud mu gaaral ñu dëgg-dëgg liggéey bi fan la tàmbalee naka lañ ko doon defee lan moo bees ci liggéey bi ko dendalee li fi ci ci barabu jàngukaay yi ci biir réew mi yëpp ak ci biir Touba lan moo bees ci liggéey bi yooyu dana ci taxaw ndax daanaka loolu mooy jotaay bi su ko defee bu ñuy génn fii ñu xam programme bu Touba buñ la ko laajatee rawatina lu aju ci école yi ba bat loolu danga mën a xam boo ko dendalee li fi amoon lan moo ci yees te dëgg ne liggéey bi ba noppi nag ba mu leer ci bopp yi ñu jox kàddu gi mbooloo mi ñu wax ci seen xalaat ñu jël note intégré yooyu su ko defee bu ko mbooloo mi validé. mu doon benn programme boo xamante ni léegi dañuy jàpp ni sotti na dawal ko rek moo ciy des jotaay bii rek la si na am na bu ko jiitu woon muy validation mooy ñi nekk ci terrain bi nekk ci biir classe yi ak ñi jiite école yi ñun yëpp woo nañ ci mbooloo bu bari ñëw wax ci seen xalaat ñenn ñi ñu fi ñenn ñi jotuñoo ñëw tey ndax xëy na jotaay bi ñu bindoo moo tax soxlaawu ñu leen kat ñooñu waxoon nañ ci seen xalaat yu demaat liggéeyaat ci dugal euh, yooyu xalaat yooyu ñu ñu doxoon jooyantiwaat document boobu nag ñu ñu ñu ñu stabiliser moom lañ indiwaat tey jox ko ci wàllu njàng bi ñoom ñoo ko defee loolu nag liñ ci wax euh, ci ay seen ay ndénkaan liñ ci wax mu dugal ko ci su ko defee bu boobaa programme bu doon programme bu sotti. xam naa boo leen gisee lu tax tudd ma waxtu yi dafa déborde lool ndax liñ jàppoon mooy juróom-ñeenti waxtu lañ jàppoon tàmbali waaye yàlla jàpp ni daal dañoo bëgg ma xëy na jotaay bu bañ a lool euh, ba mu ëpp ñu ko tënkoon rek jàppoon ne lépp war naa mën a jeex. balaa quinze heures bu fekkee ne woon nañ ko tërale woon tàmbale woon defe woon nañ ko waaye département bi xëy na ay kilifa ñoo fi nekk loolu moom dañ koy bàyyi ci seen loxo loolu daal xam naa moom mooy mooy kàddu yi ci liñ duggoon a leeral mu delloo si bàyyi kàddu yi jërëjëf.